politique yi euh, ñu ngi naan comment il a fait pour passer l'étape du parrainage. mais maintenant vous pouvez répondre à cette question. man moom laa lay laaj nii dëgg la li nga wax yëpp jaar-jaar seen mën na ko prouver. mën na ko wan mais j'aimerais aussi entendre la réponse de vous comment est-ce que vous avez fait parce que c'était une surprise en fait. générale mais yow xam nga ne am na appareil bu tudd action. oui au niveau social je fini de sillonner le pays. Mamadou j'ai fait sept pas mois de 3 millions d' enfants dimbali naa leen ci réew mi depuis sept ans je parle pas maintenant d' autres appui yoo xam ne amul benn commune boo xam ne groupement de famille ak ñeneen suma xaay dugg fii je juste en résumé. Mhm. kooku bu fekkee mënut am ay nit yu ko topp. ñëpp ci jël candidat itam jël ko man su ma amul parrainage dafa wert loolu moom moo waroon bett ndax euh, ces hommes et ces femmes que que j' moom mooy tuddee la masse silencieuse ñi nga xam ne ñu ngi seen kër toog parce que n'oublions pas. ñii gis ci ñun mooy ñu nekk ci télé yi ñu nekk ci réseau yi et cetera loolu ñuy gis. Mm-hmm. Mamadou xamuloo li xew Fongolem yi sa keneen xamul li xew Dindéfelo xamul jën John Waar je peux vous lister au moins plus de 500 villages yoo xam ne. def naa ko à euh, par d'autres étapes. mais euh, deuxième tour. voilà da ñëw da ñëw yow yëf matal ko mais. Euh, ceux qui ceux qui ceux qui vous ont parrainé. Mhm. ils ont été séduits par qui par l'homme social par euh, le médecin euh, loolu yëpp c'est différent de l'homme politique bi nga xam ne bëgg na yóbbul réewam euh, Séné Sénégal feneen. xam nga action rek stratégie la xam nga bu ñu demee ba action ñu ne ñu gis seen bokk sur le plan social sur le plan sanitaire parce que bu weesoo li nga def ci social ci loolu santé dafa naa ne effectivement comme vous l'avez dit ki nga ñu ki ñuy gis ne Covid bi mu taxawee. Mhm. bokk na ci rares sénégalais africains yu téye réew mi. ba Sénégal génn ci te fayeeku ci dërëm. Mhm. gis ni également koo xamee ne professeur d'université la expert la jël le plus grand centre de recherche et de formation en génomique appliquée et de sciences sanitaires jël àllam tabax ci biir université di ko gérer c'est avec ses propres moyens à hauteur de plus de treize milliards et autres avec une contribution de un milliard trois cent de l'État du Sénégal depuis deux ans je prends en charge tous les salaires centre baa ngi dox di dimbali Afrique dimbali réew xam nañ ne ko mën na yore réew. Mhm. parce que réew vision la mais n'oublions pas n'oublions pas que benn xam-xam nga wala ñaar mais réew dafa laaj nga jëli beneen expert yi.